dañ fi ñëw pour euh, def suivi benn formation ba nga xam ne euh, pour des pour benn formation ba xam ne Touba sa kanam moom moo présenté donc ay ay bénéficiaires yu toll donc ci ñaar fukk ak ñaar formation bi nag c'est en plomberie dafa ñum formation moo ngi jóge ci partenariat ba nga xam ne c'est entre l'Office national de formation professionnelle ONFP ak Touba sa kanam pour permettre taalibe yi fi ne pour permettre population Touba bi fi ne ñu am des formation dans plusieurs domaines si domaine yooyu mun nañ ci wax plomberie mun nañ ci wax euh, électricité mun nañ ci wax froid ak yeneen yi nga xam ne ñoo siy ñëw. Touba tam du ñoo ngi fii soog di dugg def nañ fi benn programme spécial ba nga xam ne formé nañ fi mille femmes. pour donc ñu participer au développement économique wu pays bi comment pour ñu fexee ci formation bi ñu mun a def des activités créatrice donc de revenus pour que ñu mun a autonome am nañ également benn partenariat ba nga xam ne nuye nañ ko ak euh, université Cheikh Ahmadou Bamba bu Touba pour que ñu mun leen di assister en action donc de formation. formation bi nag biñ ko tàmbalee ñu ngi tàmbalee mardi le 28 mois de mai. bu ñuy tàmbali nag euh, ñuy 22 réci donc 22 bénéfici bénéficiaire la lépp. donc te yaakaar naa loolu ñu njëkkee wax leen lan mooy njëriñ bi wax leen wan leen lan mooy différence dem nañ ba wan leen lan mooy danger bi nekk ci négliger liggéey bi ngay négliger bu ngay liggéey yooyu yëpp yaakaar naa dellu si waat nañ si yeewaat leen si donc bàyyi loo leen xel ci itamit li nga xamante ne mun nañ ko am ci métier bi muy koom-koom waaw boo xamante ne mun nañ ko see am